Euh, di wax daal na tey mercredi mardi ñaar fukki fan ci weeru février 2018 ba mu amee ñaar fukki waxtu ak ñett la ma maire oo ci téléphone na ma ah monsieur le préfet am na accident bu am diggante Nioro ak Porokhane surtout village bi ñuy wax kër Cheikh Sow balaa ñuy jóg di dem sax ci lieu yi déjà chauffeur si doon romb pèlerin yu doon dem ñoom ñëpp ak autorité yi ñi nga xam ne ñoo nekk fii mu autorité locale yi maire yi force de sécurité ñëpp màbbu dem foofu pour amener les premiers secours dimbale ñi nga xam ne ñoo ci gaañu ah euh, ñi ngi nag euh, wax dëgg yàlla am naxar ak tiis gu ñu dal parce que am na ci juróom-ñaari nit yoo xam ne euh, seen bakkan dafa wadd juróom la woon mais ñaar ñi bañ leen di évacuer ci centre de santé Nioro ci la ñu mujj faatu donc daal bilang bi nga xam ne mën nañ ko jàppagum mu nekk loo xam ne dañ ko jàppagum mooy am na ci juróom nit yoo xam ne daal seen bakkan wadd na fa am fanweeri nit ak juróom yoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu ci biir fanweeri ak juróom yooyu am na ci euh, juróom-ñett yoo xam ne daal gaañu gaañu xaw na ñoo